nag ñoom dama leen faa waa parti socialiste parce que fii nañ ko reconnaître ah. waaw nañ ko reconnaître ah. am ngeen mais bon bésu ñàkk tout cas man daf ma fasciné euh, moo tax ma adhéré si d'ailleurs c'est parce que sama sëriñ la moo tax woon si politique du ma dem ci moom damay dem di ko yóbbul addiya bésu ñàkk mouvement citoyen pour la refondation nationale la commencé woon mm. non historique bi lay wax nii ah, pourquoi non c'est important fi may daanale mm. mouvement citoyen pour la refondation nationale fan lañu mm. commencé woon mm. euh, cloné fonctionnement wu ANC parce que Bés ba si statut yi mu am mooy que mën nga bokk beneen parti bokk Bés Ñakk mm-hmm. comme ni ko Nelson Mandela defee woon donc ba aujourd'hui nous sommes un parti politique et pourquoi nous sommes mués de mouvement en parti politique mooy que bu njëkk da ngay ñëw bëgg dem élection du ñëw ni la man maa ngi ngeeg sama récépissé de parti alors man la moom mooy président bi jabaram mooy mouvement des femmes doomam mooy mhm. mouvement des jeunes mu imposer la ay situation yu contraignante ñun ñu ni pour régler des problèmes administratifs dañuy transformer wu en euh, comment dirais-je en parti politique loolu moo ñu def parti politique et nous avons participé à toutes les élections depuis élection législative élection locale 2014 ele euh, référendum élection 2017 élection 2019 et deux élections en 2022 donc je pense que Besuniak am na trajectoire te bi ñu ñëwee dañu mesurer suñu bopp dañu peser suñu bopp mooy logique parce que parti politique dafa war a dem à la à, euh, en tout cas à la quête des suffrages si électeurs yi donc ñun nous l'avons fait de de la plus belle manière possible maintenant nag dañuy am candidat wala duñu am candidat yà y deux choix benn choix bi dañuy ut un candidat à l'interne d'abord ñu xool le profilage est-ce que nous avons euh, si à au sein de Bessouniac des personnes de valeur yoo xamante ni mën nañu porter le projet d'être un chef de l'État une mmh. vision un cap le conducteur également du projet okay. ça c'est important hmm. bu fekkee ni aussi gis nañ ko ñu xool comment on doit y aller est-ce que nous avons les moyens de notre politique. Mmh. faire la politique de ses moyens et avoir les moyens de sa politique. c'est deux choses chose. différentes ouais. donc il faut forcément qu'on les moyens de notre politique et non pas faire la politique de nos moyens. Mmh. parce que sinon dañuy am def man je suis euh, informaticien je suis financier ah, je c'est important xam nga aussi il faut ñu expliquer bàyyi ko moom xam naa ni muy ni muy doxalee bon maintenant deuxième choix bi mooy choisir parmi les candidats déclarés est-ce que am na benn profil bu répondre à notre idéal ah d'accord loolu moom leer na Birama ñoom kon dañuy xaar gars yi choisir candidats yi ñëw ngeen xool ñan ngeen di àndal non xaaruñu nous sommes nekkuñu dans la passivité dañ ni premier choix bi moom la ñuy travailler actuellement nii okay. et pour ça nous sommes en train de consulter la base premier choix mooy bés du ñàkk bés du ñàkk candidat wu et man bu koy déclarer man maa ngi koy déclarer fii solennellement je